producteur ba jàkkaarloo ñoom Fatou Seye tey ñoom Cheikh Germain nag ñoom Cheikh Germain te ñoom Cheikh Mbaye wuy ay nitu dëgg parce que maa toog nii ay sant yàlla war na jaam ju nekk di waaye man tëdd naa fi kaso bii ranguy na loolu yi du dëgg loolu yi du dëgg jox weer ngeen léegi balaa maa dee ma vidéo te siis weer dee rek ñu indi ravitaillement bi indi la ay coton xoolal numéro yi nii laa ko doon jeexee naan kii du diwa mooy yow kii du Fatima sama waajee waaye yow kii du maman lii sama yaay ju baax ja nii de laa ko jàppee woon naan papis ana nga soo <laughs> ne xarañ ah, nii de laa ko doon defee kon kaane yi nag jeexagul de kaane yi bële la ak. ak rose famille vert ak rose ay maf liberté 6 waa famille vert ak corvenant. bale yëngal mbana bi mooy yàlla lii nga leen toggal ay kaldox yu saf xanaa. ma toggal leen ceebu keccax soosu petit pas bu am jom. di kay yoroo. yaa ngi yaa ngi mel ni ku jóge Dubaay mu loolu moo ma jaaxal. waaw maa yaa ngi fraîche mais. su yeewoo ba jàkkaarloog ñoom famille vertale ñoom chef germain nag ñoom chef germain ñoom chef mbay wuy ay nitu dëgg est maa toog nii. ay sant yalla warna jam ju nek di waaye man tëdd na fi kaso lii ranguy na no di du dëgg no di du dëgg yo weer ngeen léegi balaa maa dee ma liberté six wer di rek ñu indi ravitaillement bi indi la ay coton xoolal numéro yi ni la ko don di naan ki du diwa mooy yow ki Fatima sama waji wayo ki kii du maman sama yaay ju bax ya. ni la ko jàppee naan papis ana nga soo ne xarañ loo ana nga soo ne ah nii de laa ko doon defee yi nag jeexagul de carnet yi rose ay maf liberté 6 waa famille vert ak rose ay bale yëngal mbana bi moo yàlla lii daa jeexal est leen toggal ay kàll yu saf xanaa. ma toggal leen ceebu keccax. soosu petit pas bu am jom. ok yoroo. yaa ngi yaa ngi mel ku jóge Dubaay mu loolu moom ma jaaxal. waaw maa ngi fraîche yaa ngi fraîche mais. soo yeewoo huit heures ba jàkkaarloog ñoom famille vingt ñoom seen germain nag ñoom seen jarret ak ñoom seen mbay wuy ay nitu dëgg est maa toog nii. ay sant yàlla war na jaam ju nekk di waaye man tëdd naa kaso bii rang muy na loolu yi loolu du dëgg. jox weer ngeen léegi balaa maa dee ma Liberté 6 weer dee rek ñu indi ravitaillement bi indi la ay coton xoolal numéro yi nii